maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax di nuyu gars yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan euh, waaw di nuyu waa télé Sénégal yëpp yëpp yëpp di nuyu sa caméraman yi di nuyu waa Dakar Buzz en tout cas ñu ngi ñuy internautes yeeg mhm. tey ñu ñëw fekk la fi nga xamante ni moom mooy Rufisque nga gunge sa jigéen Viviane ana lan nga ñu mën a wax ci moom. waa Viviane suñu sœur la suñu xarit la ñu bokk lu bari nag bokk Prince Art bokk groupe Futur Média bokk art bi donc bu xewlee lu mel nii dañuy ñëw accompagner ko euh, rawatina mu nekk suñu rôle nekk suñu liggéey ñu war ko ñu def dañ koy ñëw. def quoi. c' est la c' est mooy ñaata yoon ñu fekk la Rufisque yow. waaw man ñëw fi ñu ñëw naa fi ànd fekk ku nekk de. mais dafa mel ni yow sa sa sa say rab fii la nekk. waaw waaw waaw mais c' est une xam nga ñun ci banlieue bi lañ dëkk donc lu takk ci banlieue rek day tax ci ñun ay Tëngéej ay Kër Massar Mbaaw. bari ñi lépp ñun la donc tey lu fi laal rek dafay neex ñoom dañuy bëgg ambiance te ñun ci ambiance la dox dañuy bëgg show te ñun ci show la dox donc di fi ñëw dañuy ñëw foo xam ni fu ñu a wax ci ki nga xamante ni itam mooy mooy mooy mooy Viviane en personne. waaw mais c'est une grande dame euh, c'est euh, euh, la ñuy woowee la reine du Jolof Band mais nii mën nañu ko woowee parce que ah si que ba mu nekkee reine du Jolof Band ba tey wàññiwul dafa yokk donc nit bu yokk day avancer te war na mën a yegg foofu quand am Viviane Viviane euh, réew mee ko bëgg Viviane ci innovation Viviane ci création Viviane artiste la lu ko neex sol lu ko neex way et puis di ñu génne parfois fi ñu nekk di ñu yóbbu feneen ak feneen donc kooku elle est elle est elle est hors hors hors hors hors hors xaw ma lan laa ko mën a wax quoi Viviane elle est extraordinaire elle est exceptionnelle. elle est phénoménale elle est phénoménale quoi. ayca tey lan nga ñu mën a sàccal ci moom loo xamante ni xëy na xam nga ko ci moom lu muy waajal nga may ñu ko rek. day sol robe boo xam ni bi fant bi nar a yem moom yow yaay dem ba fu sa xel ma. <laughs> mais mais mais mais mais mais mais euh, lan nga ñu mën a wax ci Sangom ak gars yi nga xamante ni jot nañoo jaar ci sa loxo. waaw mais euh, ñun noonu la mooy li ma booy di woowee. non stress école. passoire la waaw man moom fu xale yi di romb laa quoi man na ñëpp ñëw bu ñu jàll parce que buñ la mayee chance da ngay maye chance muy animation muy humour tey am na loo xam ni Aba mën na bàyyi dem mais am na ay booy yoo xam ne bu ñëwee toog Aba dafi nekk ba tey donc man foofu laa nekk dañ ma dimbali. damay dimbaliwaat te fii ku mën nekku fi ku ñu dimbalee am ku ñu ku ñu teg loxo booy bu ma yàlla booleel ma war ci teg loxo naa la teg loxo sama fierté nekk nit aw sama loxo ma dimbali ko feeñal ko mu feeñ ñu xam ne am na lu mu mën euh, ñu gis ko feneen muy liggéey di fayeeku yóbbu seen kër sama fierté la quoi. mais Aba euh, just two words in euh, man. in English because you come from United, United States. Uh, uh, uh, uh yes, I uh, uh, one week ago I'm here. I'm back here. I'm back in my country. Donc, and I'm proud. I'm very happy to come here. Rufisque is my town. Donc, I'm very, I'm, I'm, I'm very proud and happy for my back here. thank you yàlla nga dem àjjana suba. thank you bro I'm happy. non ok maintenant. ok comme Aba ñee la faral. ok man yéen laa faral. ok léegi dama bëgg ñu mesurer. bàyyi kaay fii ñu ko nar maye amul sécurité nañ dem ba fële. fii ëpp sécurité fii moo ëpp ah. xam nga ñëw. du ngeen ñëw bu ngeen taxawee ñu maye ko. ok waaw fii ëpp sécurité. kon taxaw leen. léegi yow li jëntil sa boor. ayca ma li jëntil sama boor. ayca léegi man sama waa boor. ayca je vais compter jusqu'à trois. ma bëgg ñu yooxoondoo Viviane fa mu nekk mu dégg ko ñi nekk ci yeneen région yi nekk Sénégal yëpp dégg ko un deux trois Viviane. ok sama waa côté est ngeen est ngeen dañ wax quatre fois ma dégg ko soog a maye une deux trois Viviane Viviane dégguma dégguma dégguma ba xanaa xam nga su meegoo de Pape Cheikh pare na ñu dalal ki nga xam ni moom mooy la reine di Djolof Pane bàyyi loolu yow laa koy bàyyel la commencé tournée nationale beneen level tour te ngeen nekk premier première date bi ñu ànd ci ak moom fas yéene def tour du Sénégal Viviane bu yàggul génne na single bu tudd Sadik Leydi Sadik Leydi muy annoncé album boo xamante ni mu ngi koy liggéey Viviane ci mën a sañse ah Viviane ci maintenir le cap ah Viviane ci nekk la reine du Malax ah Viviane ci bëgg Sénégal ah Viviane ci bëgg Tëngéej ah moo tax tey mu ne buy démarrer beneen level tour waa Tëngéej lay beral loxo spectacle son et lumière la ñu nar a xam ngeen ni lii la reine Viviane war a ñëw tey yaa yu Philippe yaa yu Seyna Viviane am benn antécédent am benn antécédent boo xam ni daf ko am ak xale yu góor yi ñu war koo régler tey yéen jaaxalu leen Viviane lu way ñun la ko way ñun ban problème lañu am ak moom ana góor ñi ana góor ñi ana góor ñi ana jigéen ñi ah ndaka jigéen ñee ëpp ambiance Baye Cheikh woowal Viviane mu ñëw ñu daal di koy bàyyi mu way est-ce que pare ngeen pour ñu accueillir Viviane ko stade bi yëpp laa bëgg a dégg waa tribune ak VIP 10 9 dégguma dégguma dégguma dégguma dégguma dégguma baaxul baaxul baaxul baaxul Viviane nee na. ah. may may ah. ah. ah. ah. may. pare ngeen pour Viviane ñëw. pare ngeen pour Viviane ñëw. Sinaa